أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid di jël tey buntu fanweer ak ñaar ci baabu qawlullahi taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin qala almusannif rahimahullahu taala baabun qawlullahi taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin almaida aya 23 sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy jàngal ci alquranul karim ci suratul maida buntab ayab ñaar fukkeel am ñett sunu borom subhanahu wa taala di dinuñ fay jàngal lool ñuy wax tawakkul atawakkulu ala allah mooy wakkiilu ci yàlla tabaraka wa taala sunu borom ne wa alallahi ci yàlla fa tawakkalu na ngeen wàkkirlu in kuntum muminin bu fekkente ne gëm ngeen yàlla kon wax ji nekk sunu kanam di kàddu yàlla tabaraka wa taala sunu boroom def ñu ci digal ba pare daan ñu ci laaj ab laaj ndigal gi mooy lan na ngeen wàkkiirlu ci yàlla wa alallahi fatawakkalu ci yàlla rek la ñuy wàkkiirlu loolu nga ciy dégg mu ne moo tax mu ne wa alallahi fatawakkalu na ngeen wàkkiirlu ci yàlla ci yàlla rek la ñuy wàkkiirlu mu ne rawatina nag in kuntum muminin su fekkente ne gëm ngeen yàlla kon looy dégg bu fekkee gëm nan fan la ñuy wàkkiirlu mooy ci yàlla waaye mbokk yi lan mooy tawakkul alallah mooy lan lan mooy tawakkulu alallah dinañ dégg ci dëkk bi lu baree bari ci ay kàddu wàkkiirlu leen ci yàlla ci yàlla lan wàkkiir lan war a wàkkiirlu ab jullit ci yàlla lay wàkkiirlu lan mooy wàkkiirlu loolu dafa jara xam dafa jara ràññee dafa jara jàng comme yàlla dana la ci man rek la ñuy wàkkiirlu kon war ngaa xam lan mooy tawakkul ba doo ko def ci keneen ndax lu yàlla moom moom kese la keneen bokk ci kon mbokk yi inna tawakkula ala allah ibada sadiq ibadatu sadiqin wàkkiirlu ci yàlla mooy jaamu yàlla nit ñu dëggu ñi képp koo gis muy ku dëggu danga koy fekk moom waa jooju di ku dëggu mu jox boppam yàlla loolu mooy tawakkul jox boppam yàlla waaye wa sabilul muxlisiin tawakkul mooy yoonu ñu sellal ñi ñi gëm yàlla yàlla lañ jox seen bopp ginnaaw bañ ko joxee seen bopp ñu wàkkirlu ci moom daldi dëggal seen jaamu waaye mu nekk yoon woo xam ne mooy yoonu ñi sellal képp koo gis mu sellal rek da ngay gis ci moom atawakkulu ala allah moom tawakkul amara allahu taala bihi ambiyaahu almursalin yàlla digal na ko yonentam yi mu yónni ndaw yi yàlla yónni yàlla digal na leen ñu wakkiirlu ci yàlla kon du yow rek lan ko wax bal wax nañ ko ñi la gën te mooy yonent yi yàlla jàkkaarloo na ak yonent yi ne leen wàkkiirlu leen ci yàlla sunu borom ne fa tawakkal ala alxayi allazi la yamut wa sabbix bixamdihi wa kafa bihi wa kafa bihi bi zunubi ibadihi xabira sunu borom ne na ngeen yëg ne su ngeen di wakkiirlu ci kenn dong ngeen war a wakkiirlu mooy alal xayi lazi laa yamuut kii dund te du dee allahu akbar maanaam déggin gu rëy moo nekk fii déggin gu xóot mooy booy dénk sa bopp da ngay dénk sa bopp ku dul dee kon boo dénkee sa bopp kuy dee perte nga kon li la war su fekkee da nga bëgg fooy dénkaane sa bopp pour nga am assurance yàlla nee la la alal xayi lazi laa yamut dénkal sa bopp kii dund te du dee kon kuy dee romb ko parce que mënul dara waaw xoolal gaa yi nga xam ne dañoo jël kuy dee jox leen seen bopp ba ñooñu deewee ak léegi ñaata at la ñaata mbir moo am ci seen ginnaaw ñaata mbir moo fi xew yoo xamante ne ba muy xew kenn mënu ci dara waleem ndoxum ndoxum barki démb gi dégg naa ci ay kër ay këru diine yu yuuxu naan ndox mi dugg na ba ci seeni biir yi nekk waaw ana ñooñu dëkkoon foofu ñu naan ñoom ñoo mën ñoom ñoo mën ñooñu ana ñu gaa yi yàlla rek a mën ku dul yàlla rek neen la mu ne wa sabbih bi hamdihi yàlla moomu di dund te du dee nga war a wàkkiru ci moom dee ko sàbbaalal foo tollu del wax subhanallah waaye wa bi hamdihi dee ko sant del wax alhamdulillah na nga yëg ne yow jaam bii moom yàlla moomu wa kafa bihi doy na ci moom rek bi zunubi ibadihi xabira moom dong moo xam bàkkaari jaam ñi keneen xamu ko bal keneen koo yaakaar sax moom dafa fees ak ay bàkkaar yàlla rek subhanahu wa taala moo xam jaam ñi seeni bàkkaar keneen xamu ko moo tax mu ne wa kafa bihi bi zunubi ibadihi xabira kon gis ngeen aaya bi liñ ciy jàng sunu borom digal na yonent yi digal xaritam yi moom mi nga xam ne mooy borom mbindee fi moom yàlla moo digle ne nañu wakkiirlu ci moom wa tawakkal alal xayi lazi laa yamuut na ngeen wakkiirlu ci kii dund te du dee yemu ci mu ne wa sabbix bi xamdihi dee ko sàbbaal foo toll di ko sant yemu ci mu ne la wa kafa bihi bi zunubi ibaadi xabira maa ngi la yëgal ne yow jaam bi ñi nga bëgg a jox sa bopp man yàlla sax xam naa ñooñu ay bàkkaarkat lañ te man yàlla maa xam bàkkaari jaam ñi kon yàlla rek moo fi war a nekk ku ñu war a wàkkiirlu sunu borom waxaat ba tey mu ne wa tawakkal alal aziz arrahim su ngeen di wàkkiirlu yow jaam bi na nga wàkkiirlu ci ki not ci nguuram al aziz mooy ki not ci nguuram ki nga xam ne nguuram gi lu ko ci neexul du ci am lépp lu fi am def ko neex moom yàlla moo ko dogal waaye arrahim ki nga xam ne mooy aji yërmande ji kookoy kan mu ne allazi yaraaka hiina taquum ki nga xam ne moo lay gis saa yoo jógee ak foo mën a jëm nag moom doo nga lay gis allazi yaraaka hiina taquum jamono joo jógee da ngay liggéeyi da ngay julli ci foo mën a dem yëgal ne sa borom ne la ba nga ne bëreet jóg man yàlla maa ngi lay gis mu ne wa taqallubuka fi saajidin bi ngay tourné jee di sujjóoti ji di julli tamit yëgal ne yàlla moomu moo lay gis innahu huwa samiul alim moom yàlla mooy aji dégg moom yàlla mooy aji xam kon ñaari aaya ngi nii yu nu sunu borom subhanahu wa taala di digal ne sunuy wakkiirlu ci moom la nu waru wakkiirlu waaye ni ko yàlla sante yonent yi yàlla sante ko xaritam yi noonu la ko yàlla sante way gëm yi wa amara bihi almuminin noonu la nu yàlla digalee ñun ñi ñëpp ñu wakkiirlu ci moom faqad qaala taala sunu borom subhanahu wa taala wax na ci aaya yu wuute ci alquran mu ne wa ala llahi fata falyatawakkalil muminuun dégg nga wa ala llahi mu ne ci yàlla rek rek falyatawakkalil muminuun way gëm yàlla bi na wàkkirlu ci yàlla ci yàlla rek la ñu war a wàkkirlu kon wàkkirlu kenn du ko def ci nit kenn du ko def ci lenn kenn du ko def ci kenn ci yàlla rek lañ koy def wakkirlu mooy lan mooy nga jox yàlla sa bopp loolu mooy wakkirlu jox yàlla sa bopp loolu yàlla rek lañ koy def kenn du dem ci nit naan ko jox naa la sama bopp loolu bokkaale la kenn du ko def taarifu tawakkul mbokk yi lan mooy tawakkul fa ma huwa tawakkulu ñu ngi koy wax bu dégg bëccëg baat boobu lu muy tekk ci olof mu ne huwa fi luga ci làkku arab léeg-léeg boroom xam-xam yi bu ñu lay jàngal benn mbir ci arab dinañ la ko wax ci làkku arab wax la ko ci islam lu muy tekki maanaam ci arab baat bi am na lu muy tekki waaye ci lislaam baat bi tamit am na lu muy tekki baat bii di tawakkulu lu muy tekki ci arab mooy al ictimaadu ala al xayri fi amri fi amrin ma al ictimaadu ala al xayri fi amrin ma mooy nga sukkandiku ci keneen ci benn mbir loolu mooy tawakkul benn mbir a ngi nii nga waroon cee sukkandiku ci sa bopp wala nga sukkandiku ci yàlla wala nga sukkandiku ci leneen waaye nga jël benn waaye sukkandiku ci moom appui wu ci moom wéeru ci moom ci mbir moomu ci làkku arab atawakkulu loolu lay tekki mooy sukkandiku ci keneen ci benn mbir bu ñëwee ci islaam nag wa istilaahan lan la tawakkul di tekki mooy sidqu ictimaadul qalb ala allahi taala fi istija fi istijlaabi almasaalihi wa dafci almadaari min umuri dunya wal axira allahu akbar ci islaam xool leen baat bi li muy tekki mooy sidqul ictimaad mooy nga dëggal sa wéeru sa sukkandiku bi nga xam ne sa xol bi moo koy wéeru di ko sukkandiku ci kan alallah ci yàlla suñu ubbee sa xol doo fa fekk xol bi di wéeru di def cëslaay kenn ku dul yàlla boo amee jafe-jafe doo xalaat kenn doo xalaat sàmba doo xalaat demba koy xalaat yàlla subhanahu wa taala maanaa sa xol bi mooy yàlla rek rek rek moo fa nekk mooy ictimaadul qalb ala allah nga fexe ba sa xol bi nga sës ko ci yàlla ci mbir mu mu mën a doon xolal mbir moo xam ne daf lay indil njëriñ wala mbir moo xam ne daf lay dàqal lor kooku yàlla rek nga fay féetale wallahi bu fekkoon ne te ci ñaari firi yi dong lañ yem da nga gis jullit yi wala lenn ci julliti Sénégal xamuñu lan mooy tawakkulu alallah wàkkirlu ci yàlla xamuñu ko ndax bu fekkee ci làkku arab mooy nga sukkandiku ci keneen ci benn mbir loolu mooy tawakkul su fekkee ci islaam tawakkulu mooy nga wakkiirlu ci yàlla ci sa xol ci mbir moo xam ne daf lay indil njëriñ wala daf lay lor ci mbiri àddina wala mbiri àllaaxira ci mbiri àddina wala mbiri àllaaxira léegi mbokk yi tey ñi ngeen di gis wala ñi ñuy gis ñu sukkandiku seen mbir waxuma sax mbiru àdduna ñu jël seeni mbiri àllaaxira jox ko nit ñaata la ñaata nit la kenn mënu ko compter waxuma sax seen mbiru àllaaxira waaye mbiru àdduna rek da ngay gis koo xam ne mos nañu laaj benn borom xam-xam benn sëriñ gars yi ne ko waaw ñun de dañoo gis taalibe yi bu ñëwee fii ci yow ñoom mbiri àddina rek lañ lay wax du ñu wax mbiri alaxira mu ne alaxira rek la nañ ko ba pare moo tax mbiri àdduna rek la ñuy wax loolu mooy itimaadul qalb ala allah sukkandiku sa xol ci yàlla ci mbir yoo xam ne dafay indi njëriñ wala mbir moo xam ne day làq lor ñaari mbir yooyu nag ci àddina rek wala alaxira loolu tax tawakkulu nekk lu sew moo tax jaam ñu bari mënuñu ko lu tax mooy li gars yi di wax fii rek yàlla kese kese dafa di tax yàlla kese soo ne jàppal ci yàlla ñu ne yàlla rek ah loolu wóoru de yàlla ak mun ngay dégg yàlla ak moo tax moo tax ngëm gi des mbokk yi wala beneen firi bu ko beneen borom xam-xam firi rahimahullah mu ne atawakkulu huwa siqa bima inda allah allahu akbar wal yaas amma fi aydi nnas benn borom xam-xam biñ ne ko lan mooy tawakkulu ala allah wàkkirlu ci yàlla mooy lan mu ne nga am kóolute ci yàlla nga wóolu yàlla nga wóolu yàlla gars yi est-ce que dëgg-dëgg wóolu nañu yàlla est-ce que dëgg-dëgg suñu xol yi kóolute yàlla tabaraka wa taala dugg na ci am nañ ci yàlla confiance waaye mu ne wal yaas amma ay amma fi aydi nnaas mu ne wàkkiirlu ci yàlla mooy nga am ci yàlla kóolute waaye nga bañ a xool li nekk ci loxo nit ñi nga bañ a xool kàttanu nit ñi nga bañ a xool man-manu nit ñi doo xool li nit ñi man mbokk yi atawakkalu wal axzu bil asbaab wàkkiirlu nag léeg-léeg nga dégg benn yaafuus bu ko firee feebar bañ a faju ñu ne la yow doo jóg faju dem hôpital nga ne non man dama tawakkalu ala allah quoi léeg-léeg nga gis benn waaye bu tëdd bañ a liggéey yow doo jóg liggéey nga wuti liggéey non man damaa def tawakkul ala allah léeg-léeg nga gis benn waaye boo xam ne sabab yi sabab yi tax mu mucc wala mu nekk ci jàmm du ko def di dawal oto par exemple ñu ne la takkal sa ceinture nga naan non damaa def tawakkul ala allah yàlla moo ma yaar loolu du tawakkul ala allah loolu yaafus la a tawakkulu ala allah mooy la budda huna min laftil intibah ala salasa umur moo tax fii ñu bëgg a geestuloo xel yi bëgg a ubbi nopp yi déggloo xol yi ci ñetti mbir al amrul awal mbir mu njëkk mi anna tawakkulu laa yunaafi axzul asbaab wàkkirlu ci yàlla du dàqonte ak nga jël sabab yi nga def sabab yi nga feebar dem hôpital faju jël garab naan waay loolu mooy tawakkul dangaa feebar da ngay uti sabab yoo xamante ne da ngay wér da nga bëgg liggéey da ngay uti sabab yi nga xam ne mooy tax nga am liggéey waaw da ngaa bëgg a tukki nga def sabab yi nga xam ne mooy tax nga tukki lépp loo bëgg a am nga jóg def sabab yi def démarche yi loolu mooy tawakkulu ala allah loolu mooy mbir mu njëkk jëlee nañ ci anas ibnu malikin radiallahu anhu qaal qaala rajulun ya rasulullah aqilha wa tawakkal benn waaye ñëw na medinatul munawwar daa di ñëw di seet yonent bi bàyyi gëléemam fële ca buntu dëkk ba gëléem gi di wër waa ji dem kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi yonent bi toog di wax ak moom ñu gis gëléem gi di romb di waraalu ci biir dëkk bi ñu ne waaw gëléem gi ko moom lu tax borom yeewu ko mu ne maa ko moom ñu ne ko ah lu tax yeewoo gëléem gi mu ne damaa def tawakkul ala allah ah bàyyi naa koog yàlla waay yeneen bi ne ko yeew ko te bàyyi koog yàlla waaw da nga koy yeew ba pare ne yàlla gardel ma ko loolu mooy axzul asbaab mooy nga def sabab yi sa portable bi nga yor da nga koy téye bu dëgër wala boo koy def nga def ko ci poos bu normal xaalis bi kalpe bi nga def ko ci poos bu bënnut doo am sa xaalis ba pare nga lem ko compter ko ba pare dugal ko ci poos bu bënn ñu ne la lii la nga ne yàlla dina ko garder wala nga def ko foo xamante ne partout mën nañ ko jël wala fi dañuy wax ne denc bu ñaaw moo gën denc bu ñaaw moo gën laajte wala tuumaal say bokk doo ñëw ci kër gi yor xaalis bu ne gàññ nga ñëw lal si yàlla ci digg kër gi teg ko fa ba pare daal ne xaaral ma dugg ci duus bi te génnaat suñ la ne doo ko denc nga ne non bàyyi naa ko ak yàlla yàlla yàlla yaa ngi koy gis de na nga ko garder de bu demee lan moo ko yóbbu yow la loolu du tawakkul tawakkul mooy bi ngay dugg ci duus bi nga lem ko dugg ko ci poos bi dugg ak moom boo génnaatee nga génn ak moom loolu mooy tawakkulu alallah mooy nga def asbaab yi sabab yi yonent bi ne waa ji yeewal gëléem gi te wakkiirlu ci yàlla waaw mu ngoog ñëw na beneen hadis ci Bukhari ibnu abbas nettali ko mu ne kaana ahlul yaman yahujjuuna wala yatazawaduun wa yaquluuna nahnu natawak nahnu mutawakkiluun suñ demee ci Bukhari yi danañ fa fekk hadis bu ibnu abbas nettali nee na waa yaman dañ daan aji màkk waaye du ñu yóbbaale lu ñu lekk du ñu yóbbaale lu ñu naan du ñu yóbbaale yóbbal suñ leen ne waa yéen fu ngeen jëm ñu ne dañuy aji ana li ngeen di yóbbaale ñu ne yàllaa ngi fi yàlla daal di wàcc aaya alquran fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa nga aaya bi li tax mu wàcc yàlla ne leen dee leen ut yóbbal kuy tukki na ut yóbbal voilà loolu mooy réalité yi da ngay tukki da ngay waaj yóbbaale li ngay lekk yóbbaale li ngay naan yóbbaale dara sa poos yóbbaale ay yére yóbbaale yóbbaale yóbbaale da ngay gis koo xam ne yóbbaale mu yóbbaale adresse ak numéro téléphone moo tax du am problème su wàccee nu muy def day woote rek ñi mu doon seeti wala ñi mu bëgg a fekk daal di koy jëli si direct ñu jël oto daal di egg fi mu jëm waaye mbokk yi koo xam ne dafay dem yóbbaalul amul yóbbal xamul kenn fa mu jëm amul ku koy guidé amul ku koy jëli aéroport amul ku koy dimbali lu ngeen xam ci kooku kuy tumarankee ngoog moo tax sunu borom dëgg-dëgg lum nu digal rek loolooy dëgg te loolooy lu gën ci ñun te buñ ci jàppee mucc buñ ko baawee alku mbokk yi sunu borom ba tey ginnaaw aaya boobu mu wàcce ne fatazawadu fa inna xayra zaadi taqwa yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na muaz ibnu jabal laa tubashirhum fa yattakilu dalilun ala annahu la budda min bazli l asbab wa adami l ittikaal xam ngeen ne ibnu abbas muaz ibnu jabal kenn la woon ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi yóbbaale na ko ci muaz yonent bi yóbbaale na ko ci ci mbaam ci mbaam yonent bi war mbaam togg ci muaz ibnu jabal ñu dem ba ci yàgg yonent bi di laaj muaz ay laaj muaz di tont mbokk yi ndax xam ngeen laaj yooyu ndax xam ngeen laaj yi yonent bi doon laaj muaz pourtant jàng nañ ko de ci sunu dars kitaabu tawhid bi jàng nañ laaj ci première dars yi laaj yi mooy maa xaqul ibad ala allah wa maa xaqul laahi ala al ibad lan mooy àq yàlla ci jaam ñi lan mooy àq jaam ñi ci yàlla muaz tëlee yonent bi tontu ko waaye bokk na ci laaj yi ba tey ba yonent bi waxee ak Muaz wax ko wax ko wax ko wax ko ba affaire bi neex ci Muaz Muaz ne yonent bi teeg ma bàyyi ma wax lii nit ñi afala ubashiruhum teeg ma bàyyi ma bégal nit ñi ma wax leen lii ni mu neexee ndax nit ñi mën a dugg aljanna yonent bi ne ko laa tubashiruhum fa yattakilu bu leen ko wax kon ñu yàccaaral bu leen am na koo xam da nga naan ko ah yàlla daa bëri yërmande rek mu ne abo man de julleetuma nga ne ko lu tax mu ne yàlla daa bëri yërmande du yaa ko wax waaw soo ko waxul woon léegi yàlla daa bëri yërmande kon lu muy def dina julli am na ñoo xam ne gis nga moo tax Sénégal ci yombal gi ñu yombal nit ñi aljanna naan leen aljanna nga gis benn waaye ne non aljanna moom caabi ji da ngeen di sonn rek mais caabi jaa ngi nii nga gis gaa yi lu ñuy wax kenn sonnul pour aljanna ndax nee nañ am nañ aljanna ba pare dégg nga barki démb benn pël ma leen waa ji doon tooñ pël yi mu ne pël bi dafa toog ci biir nag yi rek affaire bi rafet rafet lool mu daan ne mu dégg benn ustaas di waaraate ci aljanna naan aljanna mel na ni aljanna mel na ni mu ne ko am naa benn question bu ma lay laaj ustaas bi ne ko ban question la mu ne ko ndax imagination bii ma lay bëgg a laaj am na biir aljanna ustaas bi ne ko ban imagination mu ne ko nga toog ba boori ngoon nga tëdd ci sa piliyaan nag yi jóge ci àll bii ñëw doom yi daal di dagg seeni buum di songu yaay yi xale yi daal di jóg di di di di njëkkanteeg doom yi nag yi pour ratt meew mi mu ne jant bi di waaj a wàcc poussière bi daal di jóg imagination boobu yaa ngi tëdd ci sa piliyaan ndax am na aljanna nee na ustaas bi ne ko loolu amul aljanna mu ne man kon man kon man bugguma aljanna bugguma aljanna xoolal kooku ndeysaan xoolal li tax mu ne buggul aljanna moom bëgg-bëggam la wax ñu ne ko sa bëgg-bëgg bi amu fi te aljanna moom ko fa dugg bëgg-bëgg boo bëgg am ko kon ustaas bi moo ko waroon wax ne imagination boobu am na fa am na ci nit ñi leen soo leen waxee nangam rek dañuy yaafus ci accaaral dootuñ jaamu yàlla yaafus mooy comme ñun nit ñi yaafus a tey parce que dañ ñoo wax yoo xam ne dafa dema dema dem ba yomb ci ñun dafay dégg ñu ne ah julli de taxut a yóbbu nit àjjana julli yéen da ngeen naan julli mais julli taxut a yóbbu nit àjjana nit na xolam set rek yooyu ngay dégg fii waaw nit dina julli ba dee yàlla lakk yenn saa yi sax ñu indi ci ay xissa man dégg naa ci xissa yu doy waar yu garaaw yoo xam ne doo ko gis ci benn téere xanaa ñi koy wax ñoo koy wax rek daan benn imaam ah imaam bi da doon kii bi mu deewee ñu koy gas di ko suul benn sàcc dee suñu suulee imaam bi safara tàkk bu ñu suulee sàcc bi meew génn wala caawaane yooyu loolu loolu nu mu nekkee loolu xel sax nangu yow nga ni imaam ba pare ne sàcc ñu ne waaw imaam bi ndax dafa am ku xiif ñoo ne ko damaa bëgg lekk mu ne ko aw ma dara sàcc bi moom bi ko waa ji ne damaa xiif dafa dem sàcc lu waa ji lekk mu jox ko mu lekk ndeysaan nit ñi bu ñu bëggee def lu bon dañ koy laayil pour ëllëg ak si biir nit ñi mën nañoo def lu bon loolu te am nañ fu ñu ko teg yooyu texte dara wéru ci yonent bi daal ba mu waxee ak Muaz Muaz yonent bi wax ko lu ko neex ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu yërmande yàlla Muaz ba mu tëbee ne yonent bi téema koo wax nit ñi yonent bi na ko laatu bashirhum fa yattakilu bu leen ko wax ñu yàccaaral nee na lii dalilun day wane ala anna al amra ala annahu la budda min al bazli lil asbaab wa adamil ittikaal nee na dafay wone rek ne dalil bi dafay wone ne dëgg-dëgg il faut nga def effort il faut nga def dara il faut nga ut asbaab bi nga ubbi bunt yi waaw yàlla du def dara pour hasard nit du tëdd dina law xëy am alal munul nekk nit du yaafus ba pare tekki ku fi dégg tey ci dëkk bi ñu koy wax dara dafa def effort dafa buuxante Macky Sall lu tax mu jël réew mi kenn mënu ma cee tontu wala ah dafa buuxante bu ñu ko dàqee ci gouvernement bi daa gedd fële dem defi partem buuxante du dëgg yàlla jox ko réew mi c'est ça le problème même caaxaankat yi seen caaxaan yi bu jotee dañ koy préparé kon foog nga def asbaab da ngay def ay sabab loolu mooy tawakkalu ala allah tawakkalu ala allah mooy yow da ngaa bëgg liggéey mooy nga génn xëy uti da ngaa bëgg xam-xam mooy nga laxasu jàngi da ngaa bëgg alal mooy nga laxasu liggéey da ngaa am alal nga laxasu garde ko loolu mooy tawakkalu ala allah waaye doo yaafuus yaacaaral tëdd di nelaw ba pare naan mbir mi jox naa ko yàlla yàlla dina ma ko garde il faut la budda ah bi baslil asbab wa adamil ittikaal al amru saani ñaareelu mbir mooy nattaxisu l asbaab wa in kaana daifa fi nafsiha il faut ñu ut ay sabab lu mu tuuti tuuti tuuti sabab yi ni nga ko def lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw foog nga def sabab yooyu ولذلك أمر الله تعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه mbokk yi xam ngeen Ayub xam ngeen Ayub wala xamu leen ko ah Ayub xam ngeen ko de lan la woon ab yonent lan ngeen mën a nettali ci moom lu ngeen xamoon moom Ayub dafa feebaroon feebar bu métti xoolal pour mu wér pour mu def sabab mu wér yàlla ne ko fi nga tëdd dóoral sa tànk boo dóoree rek ndox dina fa ball boo sangoon ndox mi di nga wér est-ce que dëgg-dëgg mbokk yi dóor tànk dina génne ndox dóor tànk rek ci suuf dina tax ndox génn ah waaye sabab la yàlla bëgg mu def sabab yi nit fa mu def sabab maanaam yàllaay génne ndox mi munoon na koo génne saa mu ne ko waaye da koo dóorloo tànk bi xool li mu tëdd feebar de yàlla ne ko dóora sa tànk Mariama bi mu amee doom am na doom ba pare lan la ko yàlla wax Mariama bi mu amee doom pare lu ko yàlla wax yéen da ngeen di daw dar si rek moo tax te li lépp passé na Mariama bi mu amee doom yàlla subhanahu wa taala moo ko ne yëngalal garab gi gëzëmal garab gi seen digganteeg yàlla est-ce que mos ngeen gis garabu tàndarma kan ci yéen bi moom mos a gis garabu tàndarma gis nga ko gis nga ko gis nga ko moo garabu kooko ñoo xaw a ñoo nuroo ak garabu ñetti garab yi ñoo nuroo garabu kooko garabu kóoni ak tiir ak tàndarma ñoo nuroo njoolaay ñoo xaw a nuroo ay car tam sax nga jaxase leen waaye xoolal garab googu est-ce que nit mën na ko yëngal mu yëngu garab googu ndax nit mën na ko yëngal ndax doom wadd ah mais xoolal yàlla ne Mariam jigéen la mi ngi mattu ba pare yàlla mën na ko yëngalal garabu tàndarma gi soo ko yëngalee ay doom dina wadd nga lekk lan la ko yàlla bëgg a def loo mooy sabab loolu mooy tawakkul alallah foog nga def sabab sabab yi boo ko defee ba pare nag yàlla daal di ñëw ak mbiram moo tax ayuba feebar yàlla dóorloo ko suuf mariama wasin yàlla yëngal loo ko garabu tàndarma waaye xam ngeen ne garabu tàndarma góor sax mënu ko yëngal waxuma laak nag jigéen waxuma laak jigéen ju matu doom jaa ngi nii tëdd yaa ngi wasin wasin bu bees loolu boroom xam-xam yaa ngi ciy wax ci lu bare bari ci beneen bis tàndarma lu muy jëriñ kuy matu al amru salis anna laa yuctamadu alayha wa innama yujcalu al ictimaadu ala allahi taala mbokk yi ñetteelu mbir bi ñu war a jàng mooy kenn du sukkandiku ci kenn ci yàlla rek tabaraka wa taala la nuy sukkandiku kuy sukkandiku kuy wéeru na nga wéeru ci yàlla kuy làqatu na nga làqatu ci yàlla kuy wàkkiirlu wàkkiirlul ci yàlla loolu mooy aaya bi fa tawakkalu wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muminin loolu mooy darsa tey wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muminin su fekkee gëm ngeen yàlla wàkkiiru leen ci yàlla su fekkee gëm ngeen yàlla mooy wéeru leen ci yàlla jox leen yàlla seen bopp am leen kóolute yàlla ci seen biir xol ne moom yàlla moo leen di indil njëriñ moo leen di dàqal lor ci mbiri àdduna ak mbiri àllaaxira amul keneen ku ko mën ku dul yàlla tabaraka wa taala mbokk yi lii suñu boolee ñetti mbir yi moom mooy tawakkulu ala allah moo tax mu ne walaw kaana yasiran abzil as sabab walaw kaana yasiran moo tax mu ne defal sabab bi rek lu mu ndaw ndaw defal dangaa bëgg liggéey xëyal génn xëyal bul tëdd xëyal rek génn solal sa daal fajar gi génnal toppal tali bi di dem léegi nga gis ku leen saa waay looy wut waaw da nga bëgg xam-xam laxasaayu jëlal sa téere gàddul demal léegi nga dellu si ànd ak xam-xam dangaa feebar génnal demal barab ba ñuy fajoo ci nga faju ji il faut nga def sabab loolu moom mooy atawakkulu ala allah nit ki lu mu tuuti tuuti mu ne waalam anna allaha huwa almusabbibu al asbaab na nga yëg ne yàlla mooy sottil sabab yi yàlla mooy sottil moo tax Umar ibnul Xattaab ne su ngeen gëmoon yàlla dëgg dëgg comme picc yi nu mu gë- nu nu ñu gëmee yàlla kon du ngeen am problème ndax picc yi dañuy xiif génn bala ñuy ñëwaat suur léeg-léeg damay toog sama digg kër fajar gi xool asamaan si rek ma gis picc yi ran di dem heure bi nga gis ñu ran di ñibbi heure bi ngay gis ñu dem dañuy wuti lu ñu lekk soo leen gisee ñu ñibbi suur nañ këll ba yóbbul seeni doom ya ca kaaf ya ca tàgg ya lu ñuy lekk lekk nañ ba suur ba dencal seeni doom léegi doomu aadama moom ne bu xëyee du génn picc sax bu xëyee day génn picc wala di ngeen gis picc yi te bu ñuy dem gis ngeen nu ñuy raawee chaque jour bu ñuy dem dañuy am amir dañuy am ku leen jiitu noonu picc yi di ko dundee noonu la ko mbooleem rabu àll yi di dundee rabu àll yoo gis ñuy ànd nekk groupe dañuy am njiit ba ci mbelentaan yi melentaan yi ci camp yi ñuy dund melentaan yi ci ay camp la ñuy dund camp gis nga boo sotti woon fii lekk doo gis benn mbelentaan rek bu ñëw taxaw moom kese di lekk abadan mbelentaan bu ñëw ba gis lekk bi day delluwaat ci biir camp bi daan ne amir bi gis naa lekk mu ne ko bu bëri la wala tuuti la mu ne ko bu bëri la moom amir bi mu daal di woote ñëpp ñëw taxaw mu ne dañoo bëgg ñaar ñuy volontaire dem lekk suñu deewul ñu xam ne amul poson ñu indi ko ci biir camp bi su ñaar ñooñu lekkee dee mu ne bu ko kenn laal ñaar ñooñu génn ñëw lekk ñu may leen ay ay minutes suñ gisul ci ñoom changement ñu daal di déclencher camp bi yëpp génn ñuy màtt di dugal ñuy màtt di dugal ci biir kenn du lekk moom kese lu dul yëf yi jeex te suñuy liggéey di dem di ñëwaat da nga gis ñuy ñuy nuyonte day gis ñu nuyonte nii dem di nuyonte di dem benn aaya dong la ñuy dañuy dund ñoom benn aaya waxtasimu bi hablillahi jamian benn borom xam-xam nee na da doon testé ndax lii ñu wax nii dëgg la wala du dëgg mu ne mu jël suukar teg ko ci taabal ji mu tëdd fajar mu yeew mu gis paquet suukar bi fees dell ak ay mbelantaan mu laxas ko fëgg ko dindi melentaan yi fëgg ko daal di koy denc fajar gi jot mu daal di jël paquet suukar bi teg ko ci benn bool ub ko tegaat ko ci taabal ji mu ne mu yeewu mu fekk ci mbelantaan yi te um na ko mu ne suba dinaa ko def foo xam ne mbelantaan yi duñ ko laal mu dem root benn paanu ndox ba paan bi fees mu jël benn ban taxawal ban bi dugal ko ci biir paan bi ban baa ngi ci biir paan bi waaye kaw ban bi ah kaw ban bi mu ngi ci kaw ndox mi du tooy parce que ban bi su taxawee moo sut ndox mi mu daal di jël paquet suukar bi teg ko ci kaw ban bi léegi lan moo wër paquet suukar bi mu ne bu soobee yàlla mbelantaan yi dañuy jaay sob tey moom benn mbelantaan du laal paquet suukar bi allahu akbar xam nga lan mooy mbeteelam bi mu yeewoo mu fekk ay benn cordon mbelantaan boo xam ne ñoo volontaire pour dee pour yeneen yi dugg dem ci suukar si yeneen yi ñoo jàppoo jàppoo ba nekk benn ligne ah ci bopp paan bi ba ci bopp ban bi ñu jàppoo nii ñoom ñu daal di dee dañoo jàppoo nii ba egg yeneen yi jaar seen kaw mu ñëw fekk paquet bi fes dal mu ngoog gis nga xoolal belentaan day def ay sacrifice moo tax jàng ngeen ci suratu Naml la xorondom bi di Suleymaan di ñëw ak armée bi ànd ak jinne yi Suleymaan boo doon boo ko doon message ci sunu président yi di génn Suleymaan bu doon dem ngelaw lay yéeg 4 kilomètres carrés jinne yéeg njanaaw yéeg nit ñi nekk ci xorondom bi bi mu yégee Suleymaan di ñëw lan la wax yaa ayyatuha namla udxulu masakinakum xatta laa yaxtimannakum Suleymaan wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun eh yéen xorondom yi dugg leen seen biir kàmb Souleymane a ngi ñëw ak armée bi balaa mu leen di nappaaje Souleymane daal di dégg wax ci fa mu nekk yàlla déggloo ko wax ji mu daal di reetaan allahu akbar fa tabassama daahikan bi mu ñëwee xorondom bi indil ko addiya mu ne ko yow lu tax nga naan xorondom bi nan dugg seen biiri néeg ndax maa ngi ñëw ànd ak armée bi balaa balaa ma leen di nappaaje man xanaa damaa dof xanaa awma xel belantaan bi ne ko xanaa déggoo li ma ci teg wahum laa yashurun mun ngeen ko def te du ngeen ko yëg daa déggoo wax ji ma ci dool déggoo ma ne wahum laa yashurun Souleymane daal di ree ndeysaan daal di sant yàlla kon xoolal rab yi sax rab yi ni ñuy dundee rab yi doomu aadama yi duñ dundee noonu kon rab yi dañoo def tawakkul ala allah dañoo jox seen bopp yàlla xoolal balañ yi ci biir géej di nga gis balañ boo xam ne tey buñ ko génnee xejul ci oto xejul ci bato di nga gis balañ boo xam ne guddaay beeg reyaay bi ëpp na 16 21 remarque buñ ko ci dugalee kaw gi dina ko ëpp genn gi day wàcc suuf di diree ko waaye léegi laaj bi mooy requin boobu wala balañ boobu wala jën boobu ñaata at la def ci biir géej gi ba toll noonu lu mu doon lekk ba toll nii yenn saa yi nga gis gaynde goo xam ne yenn saa yi nga gis ñay boo xam ne mbokk yi gaynde yooyu ak ñay yooyu seen digganteeg yàlla lan lañ lekk ba toll noonu lan lañ lekk war nañu laaj suñu bopp loolu ñii lan lañ lekk ba toll nii kan moo leen doon jox lekk kan moo leen doon wërsëgal mooy yàlla subhanahu wa taala kon ab jullit na wàkkiirlu ci yàlla tabaraka wa taala looloo tax aaya bi nenu wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin bu dee gëm ngeen yàlla kese jàpp leen ci yàlla qaala abu saada yuqaalu tawakkulu bil amri kii wàkkiirlu ci benn mbir lay wàkkiirlu mbir mii daal dafa am ma bëgg cee sukkandiku ci kenn walla ci dara walla ci yàlla léegi nag ban lañ ma ci sant ci diine mooy wàkkiirlu ci yàlla bul sukkandiku ci ay da ngay gis ku feebar dem di sukkandiku ci ay petaaw di sukkandiku ci ay xaaw di sukkandiku ci ay deret pour wér di sukkandiku ci sàngara pour wér sukkandiku ci ci yàlla ba pare nga ut sabab seet nooy wéree dénkal sa bopp yàlla nga ut sabab xool nooy wéree sabab yooyu mu noo koy amee mooy nga xool niñ la santee ne ku ko fajoo wér nga fajoo noonu wala nga ni isa dammana alqiyaamu bihi wàkkiirlu mooy nga garanti sa bopp ci dara nga jóg pour def dara wa wakkaltu amri ila fulaan wala nga jël sa benn mbir jox jox keneen yenn saa sax nga gis kuñ laaj waaye mbiru sàngam loo ci def mu ne non dama ko bàyyeeg diw loolu mooy tawakkiru mbiru sàngam loo ci def dama ko jox diw bàyyi noo ko ak moom lu mu ci def noonu la loolu nag bu dee mbirum diine def ko yàlla bu dee sa mbirum àdduna ak sa mbirum àllaaxira jox ko yàlla subhanahu wa taala mu ne isa ictamattu alayhi su fekkente ne sukkandiku naa ci kenn rek su boobaa du baax naa jël sama mbir yooyu ma sukkandiku ci sunu borom subhanahu wa taala kon baatu tawakkulu li muy tekki mooy sukkandiku sa bopp ci yàlla jox yàlla sa mbir sukkandiku moom sukkandiku ci moom ci sa xol ci say mbiri àddina ak say mbiri àllaaxira nga ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul la ko yàlla barkeel la ko wàkkiirlu boobu nga def yàlla jëlal la ko kon mbokk yi loolu mooy darsu tey incha allah commencé nañ buntu bu bees yéen ñi am ay téere ngeen góorgóorlu indi téere yi di sukkandiku ci dars yi ñi amul tamit buñ mu ne ut kitaabu tawhid bi moo gën ndax ay aayee ci ak ay waxi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoo xamante ne pour ñu maîtriser ko dina baax ci ñun dinañu muccloo ci bokkaale yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def ak dund ci bidaa yi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne aju na ci ñu ñaan yàlla mu nangul ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu